waaleykum les euh, gens gis mag bu amee sutura moo ko may jomb naa man nekk si réseaux sociaux di wax ñu may saaga wala ñu may jàpp di ma di ma 72 heures man jomb naa ko barki Seydina Muhammad te yaa mag fuuf mais li la xale di def nii dëgg la ndax yaa toroxal sa bopp fekk koo xam ne defu la dara nga di ko jàpp di ko xas di ko wax ñaaw defu la bu la defoon dara sax wala nga am xel bu toll ni war nga am ngor bu toll ni bàyyi ko te xam ne kilifa la léegi dafa yor dafa yor lu mel ni gouvernement mais li nga def ni togn nga ci djublu ak yengal tooñ nga ci djublu ak chercher ay porte créer ay ay ay mbir té seen intérêt mo menacé moo tax ngeen defourni di wax di n'importe quoi ay xalé yi ndaw ñoy taxaw di saga seen ci internet bi te daru def la ci ñoo la ëpp jot ñoo la ko ñoo la dakk wax te xam nañ ni xalé yi ndaw ngay gis xam lañ wax bu baaxa baax di la tontu jom nit mo koy amal boppam té ngor nit mo utal boppam kenn du utal kenn barki sayidina Muhammad li nga def ni jombo na ko man même bu ma ni man ci internet bi ko tontu wala makoy xass bu du def man jombo na ko mais taxaw fi ni saway han ah, ah di yàq ay xalay ndaw genn di saga sa ndey guddé bi tek subaak ngon pour man loolu ku nek war nako jombo jombal tay tey instant bi tal yow même bu re sax kefu diine nga wala da nga am ben ben statut bo am wala nga xol ci loolu nga jombo li nga def da nga def ni ko gëna ñaw ñaaw amul lu ko gëna ñaw amul ki ngay waxal fi ne nii la tontu da yégul ni sax yaangi wax mais ay boyu tout ñoy taxaw di la tontu di la wax musiba sa ay dabo diko deg sa ay mbokk diko deg sa ay dekkando diko deg pour mom waron nga jom lolou yow li alal jaru ko tur jaru ko bës jaru ko barki yonenti yalla ma xam man la ñuy jaral dara jaral ma ko di ko da ngeen ñak jom ay mag yu ñak jom ngeen ay mag yo xam ne amuñu amuñu lu ñu bañ tas gor gor pour man gor bu fekke jom dañ na ci mom ngor dañ na ci mom barki sayidina Seydina Muhammad nekatul nit li dafa ñaaw ay boyu tuti ñew taxaw di la wax musiba damay dégg ben boy wax lo xamni ne daf may leer ne kinia ah, limi muy wax da koo xam bu baax te xale la donte xale la mais mi ngi wax lu wér taxaw di la wax loo xamante ne xoolal bañ bu ci dal dee te loolu dafa dafa dafa jekkati man dama ci am kersa barki Seydina Mohamed dama ci kersa lele léeg ma toog dégg ñu lool man defa man xam naa li ngay wax dafa ñaaw ñaawaay wax mun ma ko man gis nga barki alxuraanul karim vidéo yi ngay dugal yëpp dégluwuma ci benn mu jeex ndax dama koy parce que dafa ñaaw dafa yow ak na la Amet Amet Amet xaw ma Amet la yéen ñaar seen i waxtu mu leen déglu parce que dama xam ne da ngeen bon kon dëgg ngeen def soxor ba pare seen xol yi mooy wadd ngeen dee te lii am yàlla mënu leen ci dara dara dara gis ngeen am yàllaa ko def mënu leen ci dara dara dara dara da ngeen di dee muy am ngeen di dund muy am hmm? te mun leen wax a wax ba fay jant bi mënu leen ko noppalu leen ngir yàlla yonent bi bi li ngeen def da leen gën a yàq rek ah waay sant salte ngeen de salte ngeen trop